ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di bu baax di leen siyaare di leen siyaare ci bis bu tedd bi ñu nekk di leen siyaare itam ci barab bu tedd bi ñu nekk di leen siyaare itam ci bis bu tedd bi ñu nekk ak waxtu yi nga xam ne tam bokk na waxtu yi nga xam ne yi gën a la bokk di ñaan suñu borom bokk na ci defal tawfiix ñun ñëpp eh, xam naa waxtaan tey insha allah dina koy tënk rekk ci weeru tedd bi nga xam ne ci la nekk mu di weeru gàmmu weeru gàmmu suñ ko waxee kenn ku ne sa xel dina dem ci feeñ eh, bi nga xam ne ci ngën gi mbindeef feeñ muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu ñu di wax guddeel gàmmu waxtaan na ginnaaw fàttalee rek dayoo bi nga xam ne gàmmu am na ko ak itte din war a jox jàpp naa ne li ci Cheikh Saliou Mbacké jote na leeral xam na ne guddeelu gàmmu yemale ak guddi ga ko jiitoon ak guddi ga ca toog daa jël ko ci ab jullit kon loolu suñu sukkandikoo mën nañ ci dégg ni lu dee gàmmu lu jara fonk la lu jara màggal la sëriñ bi itam indi na ci ay mbindam njàngale mu yaatu lu jëm ci jëmmi weeru gàmmu ci ak lu jëm ci guddee gàmmu la ja aju ci ay njëriñ ak nan ko war a màggale indi na itam ci ki tax luy gàmmu mu ni ngën di mu def alayhi salaatu wasalaam indi na ci ay jikkoom indi na ci melokaanam indi na itam ci ay digleem ak i ngir fàttali bu nu waxee ngeen di tuddee alayhi salaatu wasalaam gannaaw suñu borom wax ne doomu nit ñi mu di yërmaane ci aw xeetam wax ne lépp lu ngeen indee na ngeen ko jàpp lépp na ngeen ko bàyyi mu del wax ne yónni naa ko ngir mu nekk ki nga xam ne mooy mottali jikko yu rafet yi kon mel na ni jikko yu rafet naka njëkk ba jamono si soor ba léegi nii mi ngi am waaye nag ngënt bi de alayhi salaatu wasalaam dafa ñëw ngir mottali ko ba lépp lu waay soxlaat fii ba saa su ko xoolee ci islaam dina ko def fekk loolu moo waral ñu bëgg a tënk waxtaan wi ci lenn ci ay mbindam sëriñ bi yoo xam ne daf ciy jàngale sallallahu alayhi wa lenn ci ay jikkoom loolu nag xam naa du koy tënk rek ngir kenn ba xam ne mbindam sëriñ bi ni mu koy waxee ak la muy jëm ca biir lépp leeral ko du loolu moo waral ñu bëgg cee indi ay bayt rek ngir fàttale suñu biir lépp jëm yi njàngale yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ko doon jàngalee te sëriñ bi indi ko ci lenn ci ay xasidaam bokk na ci xasida yooyu xasida bi ñu tuddee eh, mu xaddimatul amdaa eh, sëriñ bi daf ci indi ci jëkkooy ngeen bi bindéef loo xam ne doyal na sëkk am njàng doyal na sëkk ak fàttali ci waxtu ne ñu di ko nafar di ko fàttali suñ biir ngir bëy wun ci tàng rek suñ ko settantalee di leen def xel ci ay jikko yoo xam ne kenn ku nekk ñun bu ko jikkoo dina ko jëriñ fii mu nekk waaye tam dina ko jëriñ fan jëm ëllëg ndax ay jikko ju rafet ni mu am jëriñ ci àddina ni la am jëriñ ëllëg bul teewee ma suñu kanam borom ndax wax na ne àjjana ku ne mën nga faa dem waaye suñu borom moom kaw koy teggit mënoo ko gis loolu nag mënees na koo misaal màggal Tuuba ku ne mën naa màggal waaye nag jëm xalifa ba nga egg ca moom a waxtaan moom na ko bëggee loolu moom di ñëpp ko mën a am waaye jëmmi dem Tuuba moom ci màggal ku ne mën na faa dem kon nu xam ne jikko yooyu nga xam ne nag sëriñ bi da koy jàngale rawatina ci xasit yi nga xam ne li am ci din koy duruus di ko jàng wax bu ne waaye tam war nañ jàmm na jàng ay jikko yoo xam ne li ñuy jàng buñ ko xoolee suñuy jëm gis ko buñ ko xoolee suñuy wax gis ko buñ ko xoolee suñuy jëflante gis ko ngir loolu bokk na ci njëriñ li nga xam ne dina jóge ci xasida yi ngay jàng wala téere xam-xam yi ngay jàng bokk na ci bayit yi nga xam ne ñëw na ci xadimatul am daa li sëriñ bi wax ne nahaani hubbullaahi nimal muhayminu anil mayni amahdira wal xaqu aqmanu kon feeñal na ak dugg suñu boroom feeñal na ak doyloo suñu boroom waaye feeñal na itam ne lépp loo xam ne ak safaan la wala lépp loo xam ne ay jaaxal la won ko ginnaaw tey yéene mooy saxal li nga xam ne mooy ak dëgg te dëgg buñ ko waxee mooy islaam mu ne namasullaa abdan li mawlaay waxdahu xadiman li man am darkihi kàllat as nee na lépp loo xam ne dafay nuroo ak am ko wala muy nuroo mbóoréent ne jël na ko sànni fële fas yéene nekk jaamu ki nga xam ne mooy suñu borom waaye tam di liggéeyal ki nga xam ne mooy ngën di bindéef nasabtu binaa almayni bil xaq maa di xaq li fardin ala xulqin wana anhu day dël kon ngi tàmbali di leeral ki nga xam ne mooy ngën di bindéef lenn na ci ay ak ay melokaan yi nawitu daam zikri wa shukri li xayril wara nixman xasiinu mu zayyinu ne sama mooy wax bu ne ma sax sax dàq ci ak di liggéeyal bi xam ne nag mooy ngën gi bindéef kon jullit bu ne rawante ne taaliba bu yaakaar sëriñ kon wax bu ne waroo neenal say wax wax bu ne war ngay fàttaliku suñu borom ci di moo xam ci jàng alxuraan moo xam ci jàng xasida moo xam di toog di xalam suñu boroom màggaayam bi ak mayam yi waaye toog loxoy neen loolu naka jekk sëriñ bi da ko daa tere waxtu wi tam nga sax ci sant ndax santit dafa bokk ci daraje yi ci gën a kawe te suñ delloo ci alxuraan waxtu ne suñu borom bi nga xam ne ñu néew ci jaamam ñi ñoo koy sant kon ñu néew loolu nag gannaaw sëriñ bi daa am asfata lu ñu te li muy néew néew kon kenn bu nga xam ne war sax ci sant mu ne liggéey bi nga xam ne nag mooy ngën di wér mbindéef mi nga xam ne suñu borom da rafetal dafa sellal ay jikkoom waaye tam da koo mu ne kooku mooy kan mu ne nabiyun rasulun xayru abdin wa sayyidun xalilun xabibun misluhu laysa yu'lam nee na kooku day ab yonent la buñ solo waaye nag mooy gën ji bindéef mooy gën ji jaam ab sang te xaritam suñu la ab soppeem la ku mel ni moom day mësta am te dootu am waaye nag na jiiwul zaakirun wa huwa shaakirun jawaadun karimun bil makaarimi yuxsinu loolu itam su ko seetlantee dina gis ne benn bu ci ne ci njubbu yooyu mu tudd yenn la ci ak jullit mu fexe ba nekk ci moom ngir suñu borom moo liggéeyee doomu aadama moo xam ne lu baax ak sabaan lay lay di wóor waaye nag su wóoruloo xeex ak sabaan bi ba lu baax li mu ngot ko léppam day baax moo tax mu ne nañu yónni moom day ku musal la ku sell la xariibun bu jege suñu borom la zaatun kuy sant suñu borom la ko fàttaliku di ko tudd ci waxtu bu ne waxoo saakir kon li mu doon waxaat léegi ñëwaat moom mooy maanaam saakir mooy nit ki waxtu wane war na sant suñu ci xiiwal yi ko suñu borom xiiwal yi nag suñu borom dafa wax ne kenn ku ne li ay xiiwal boo ma defal doo ko mën a mën kon ab jaam ak melokaan bu mën di nekk rek war naa sant ndax am na lu am te borom amul te doy na ci rek mooy mooy mbir maanaam wax bu ne nga bëgg a noot wala nga bëgg a yëngal say jëm mën koo yëngal nga bëgg a toog bëgg a taxawal bëgg a tëj lenn lu bu ne yaa ko fu ko jiite woon te bu ko mënal ko kenn ku lu solo su ngeen di mooy tabax si amoon bu yàggul rek da ngay dégg ñu ne hôpital yi liñ ci waaj la ngir ñu feebar man ko looyee dafa mën mën mën mën ñu feebar loolu dañuy ñëw ñëw di leen koy jaar kon ñoom nga xam ne wax bu ne yàlla mooy gën jaayoo tey kenn di dem sawar leexaar day dem ndax dafa yor dem jikko jikko si borom yi kon tabee dafay jikk yoo xam ne moom rek pour ci taxawal mën nañ cee yàgg lool ndax kenn ku ne xam ne sëriñ bi suñu borom la cee defalal taw yoo xam ne ak njaboot yi itam suñu borom dafa nekk ci tawfeex kenn ku nekk ci ñoom war na wax bu ne moo tax bokk ci ay jàngaleem suñu delloo ci téere borom mu tuddee nax bi muy wax ne wala yurhibuka layaatu alamu illa faaluhu di saaba borom nee na kenn ñëw ci di sax dara ci yow lu mat nan ko ko nee na ngir def ko mooy dafa bisaab ba gërëm la ci ngay mën a amee tedd la ci ngay mën a amee raw sa maas ci ngay mën a amee am sa gërëmal borom mu del wax ne taqiyu ku set la ragal yàlla la loolu def jullit bu ne war nga ji góorgóorlu waxtu bu ne ngay fexe nekk nit koo xam ne ku set ngay nekk ci ku set ngay nekk ci say wax say jëf tey wax bu ne day làmboo ak ragal yàlla waaye yëngu loolu saalihun ku baax la baax saalih nag mel na ni dara jëlu kawe la ndax buy seetloo Cheikh Mouhamadou Bachir melal soxna Jaara Buso bokk na ca jikko yëpp ko limal ne saalix ba nekkal na ko baax kon baax bi mën naa waaye rek nañ jur bu baax la waaye nag saalix bi nga ne moom la ñuy na ni buñ ko nandee seex saalix rek dafay mel baax baax du doy ndax doy na ci ki nga xam ne nit baax la du tarde waxtu julli nga nekk gërëm ba julli jot mu dugg cib saalam julli def la mooy nag lépp def ay ngëndam ñëw toogaat kooku saalix la waaye nag bay bi ci dox boo ko muslimul loolu mooy li nga xam ne kenn ku nekk noonu war nga ciy góorgóorlu mooy nekk ku baax ba noppi di fexe ba nit ñi baax ndax baax yow rek du doy ndax jafe-jafe yi am di réew di réew yëpp bu fekk ne ñëpp ñoo moom ñooy bokk nekk ak kon jafe jafe mën naa néew waaye doon da ngaa nekk ci am ñu nekk ci jubani suñu borom dañu dem naa ko daf koy boole ñëpp kon saalih duy waaye nga nekk muslim waxtu ne daf ciy baax mu ne bashiru bi man lillahi bil xaq yu soxin waaye yëmul ci nekk saalih ak muslim waaye képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci fu la fekk dalay yëgal looy lu jar a bàyyi la ndax jamono ji léeg-léeg gis surtout ndaw ñi dinañ jëm ci baax waaye da gis ni leen war a la soññee duñ ko def waaye dañuy wut ay baat yoo xam ne soo ko seetal day mel ni lu leen di taayam lool ki jëm ki daw jëm ci baax ak lu mën di mel da nga moom ba lool waaye la nga jàpp ne nag wa illaa am na ëpp ci dana baax ah, lii ne nii la tëddee lan lii boo ko defoon nii te ci wax ak ci jëf ak di ko ci lépp loo xam ne jàpp na war na koo mën a suuxatal loolee mooy jëf moo tax bashiru li man lillah bil xaqi yusxiru mooy képp koo ne yaa ngi jëm jëm baax waxtu wu nga di ko bégal ci wax di ko bégal ci jëf di ko bégal ci di ko jege di ko bégal di ko xamal ne itam yaa ngi yoon kon loolu itam bokk na ci jikko yi ne war nañ koo mën a jàng ci gën ñu dee yëngu ci loolu de mu ne na ku yeewu ak yiwul amul ay teggal la ci wax ci jëf ci lépp lu mën doon su xayaa yu xasëb ku bari woon kersa la ndax kersa alxayaa bi na imaan kersa dafa bokk ci gëm yàlla moo tax ñu nit mënta am gëm te amul kersa waaye mënta am kersa itam te amul gëm kersa nag ci islaam sëriñ bi indi na ko wala na ñaar ñaar loo ci am am na ci boo xam ne lislaam moo tax da koy rafetlu mooy nga am kers da def loo xam ne suñu borom da koy tere boobu te kers bi nga xam ne tabiixe la masalan nga daal di koy yor yor maanaam yor yor bu nekk fexe bu julli juróomi ñetti rakaa yi nga xam ne moom la jigle ci bi léegi yor yor tey nga demal ci barab nit ñi bari naa am am naa kersa mbooloo mu toll nii ma dugg ñu xam nga kersa boobu suñu borom taxul waaye kersa nit ñi ñu la gis boobu kersa boobu ci xam ne moom la ñuy jàngale kon kersa bi ci am mooy kersa bi war sa diggante ak teelaat ak safar waaye nag nag yi ñu man li li man bi ko fi ba seet du yox leen ne ni mu nekk yoon nag waaye képp koo xam ne nag séntu ngay def mooy uf doo xam kersaam ci moom maanaam da lay uf di la ci yàlla di la wax suñu borom ak li mu tere kon nit ki moom ak loolu bëgg bëgg bëgg bu defee ak safaan war nga koo wax amma ñi ñu waxee na nag xëy foofu la ndax la nga wax ay teggin ak na nga koy leerale waaye nag ni mu wax na siiru man li man bi ko ba shet bi kon kenn ku nekk lu wër dëkk war na koy bàyyi xel nasiiru ne na daana nekk nit kuy laaya biir mooy képp koo xam ne yaa gis muy def ak safaan nga laaya ko biir te laaya biir ngay def di di mooy nga def ngir yàlla te bañ kaa dugal lenn loo xam ne du noonu alimul muallimu saqiyun bilaa màllin ku amoon xam-xam ne di xam le waaye nag ku tabe la tabe koo xam ne itam du ànd ak maa defal la kon mel na ni waxtu bi jot na kon foofu la ñuy tëjee kàddu rek kon sax ñu ngi laa maa ngi doon di jox misaal ñoo Cheikh Amadou Moustapha al Karim nit mas naa ñëw ci moom sëkk wax ko soxlaam mel ni de sàkk ci moom ndimbal mu ne ko waa baax na da ngay demal sa kër dinaa la mu ne li mu doon bañ woon soo toogee ci kilifa mbooloo loolu la nga ñëw sëb bi moom nag dama am itte mu làmb poosam jox la kon kenn ku ne xam ne ne itte moom ñu ñëw andi ko ni naan bi kër gis naa ko suñu bay sàmm waaye ba war a soxlaa nga ko demal mu dem këram nga bàyyi ko tuuti nga seet koo dëna woon jël la la doon laaj jox ko mu yóbbul ñu nekkal te mbooloo mën na bañ a xam ci lu itteem jooja kon luy jib nga xam ne ku mel Cheikh Moustapha daf ci daay jàngale ci ci lii misaale rek ay jikko yor la kon sax loolu bidaa maa ngi moom it day jikko joo xam ne kenn ku nekk noonu war nga ko jikkoo mooy dimbale te yàlla tax tey lépp looy def lu gën a suturalu mooy li gën kon yaakaar naa mu xatamaan bu ko toppal ba mu jeex benn bu ci seen indi rek bu ko settal dalaatee xam ne bindu ko rek ñu di ko jàng nii ñu ko merkeloo waaye ku koy seetal te ay jikko yoo xam ne ñu koy wax ci sallallahu alayhi wa sallam ñu war koo roy ci moom kon buñ ko xamul nag lan lañ koy mën a roy ci moom ndax nit bu fekkee dina nan ko roy te xamoo lu mel xamoo lu jikkoo xamoo lu bëgg xamoo lu bañal roy ko day des kon ñu ngi ñaan si borom bokk ñu defal gàmmu ñu ñëpp euh, gàmmu gi nga xamante mi ngi ci suñu kanam su borom defal ci tawfeex ñu mën koo jënd ko borom digle te lépp lu ci suñu borom liggéey ci aw yi dem mën ko matale kon ñu ngi ci soñ suñu bopp soñ ñi fi nekk ñëpp na ko waxante ba muy suñu la wax ne guddee gàmmu yemale guddi gu ko jiitu ak guddi ga ca toog dara jël ko ak ñu nit kon fu mu fekk waaye bi nga xam ne war nga ko mën a taxawee ci melokaan yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee yëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh